الحمد لله اللهم لك الحمد كما تحب وترضى حمدا طيبا مباركا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصل اللهم وسلم على نبيك مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا همة شيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة بها أنا الوزري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي مكتالبي إني ñu topp سين seen seen TV seen émission bi di di Boutique de Fayda ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di wax ne dellusiwaat nañu ànd yen yéen ci suñu darsu ci nujumul huda fi kawni nabiyina afdali man daa ila llahi wa hada ñu nekk ci firnde yi wane ne moolaana rasulullah sallallahu alayhi wa mooy ngën gi mbindéef wa bitaali mooy ngën gi walla mooy ngën gi yonent yi ne moolaana cheikhul islaam ne muhaqiquun yi borom xam-xam yi nga xam ne yàlla may na leen dëggu ñoom sax di mu ne junj nañ jëmee ci li nga xam ne mooy tàqale ko tàqale ko bi nga xam ne moo nekk maanaam buñ ne tàqale ko mooy wuutee bi nga xam ne moo nekk ci diggante yonent bi alxabib sallallahu alayhi wa sallam maqaamaam ak maqaam ak keneen ku dul moom ñu def ci ay leeral yu bari loolee nag lañ bëgg a continuer njëkk cee yi yonent bi nga xam ne mooy suñu maam Ibrahim alxalil alayhi salaamullah ni ko yàlla fonkee ni ko yàlla bëggee ba tuddee ko xalil waaye kaay nga xool yonent ci yàlla ibrahim moomu maqaamaam fu maqaamu moolaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xool lan mooy seen différence boobu la njëkk indi ci téere bi parce que mu ngi ci différence bi nekk ci diggante yonent bi ak yonent yi ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ak yeneen yonent seen maqaama yi foofu lay ñëw su paree rek mbokk mi la ma la waxoon dina leer li tax borom téere bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy afdalul ambiya wal mursalin wa bitaali mooy afdalu kon mel ni page bi ñu nekkoon keroog moom la ñuy continuer maanaam fi ñuy commencé dar bi foofu la nekk mooy ñaari sattur yi nga xam ne moom ci mujj mooy fi ne mu xaqiqu ni ñoom jungi nañ jëm ci wuute bi am ci diggante yonent bi ak yeneen yonent yi mu ne wa ilayka ayatin am na aaya yoo xam ne nag moom mu ngi ci kanam tuwaddihu laka ba'd zalik dina la leeralal loolee aaya yi nga xam ne dinañ ko gis dina la leeralal lool waaye ci kan la ko jëmale yonent yàlla ibrahima alayhi salaam moom lay jël wax nga ne li nga xam ne yàlla jox na ko maqaam ak garaadi ko yàlla cappal waaye ca même maqaama ca même garaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee nan la ko yàlla joxe ak fan la ko teg mu nekk ngëneel yoo xam ne danañ ko gis mu ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabdaw bil farqi bayna maqaamihi wa maqaamil xalil mu ne dinañ commencé kon ci suñu njëlbeenu preuve yi ci ngëneelu di di dox ci diggante yonent ba yonent yi mu ne danañ ci njëkkee yonent yàlla ibrahim alxalil wax maqaamaam wax maqaamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk mi nga xool nag ñaari maqaamu yooyu ndax ñoo tolloo alxalilu maqaamuhu an tamia fi lmagfirati bi qawlihi walladi atma an yagfira li xatiati yowma ddin والحبيب مقامه في ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر yonent Yàlla Ibrahim mooy xalil nee na maqaamaam bii nga xam ne mooy maqaamaam yàlla jéggal ko mu ne moom moo ko bëggoon ba xiir ci mbëggeel ga ba wax ne li ma bëgg yow yàlla mooy nga jéggal ma samay bàkkaar kër bis pénc walladi atma an yaxfira li xatiati yawma diin man daal li ma bëgg di ko di ko xemem mooy yàlla jéggal ma rek bis bi yaaw yéen ci yàlla ibrahim ñan ne njéggalal yàlla wal xabib maqaamu fi dhalik xabib mu yonent bi fu mu ne xabib rek yéen ci yàlla moom sallallahu alayhi wasallam la ci jublu ne na xabib moom maqaamaam ci loolu na nga ko xool mooy lan moom day nekkut fa naan walladi atma an yaxfira li xatiati yawma ddin moom dafa toog rek yàlla gëne la ko ci kaw yonent yàlla ibrahima ci maqaama boobu ne ko inna fataxnaa laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ñun yàlla day ñoo la ubbil ñun yàlla ginnaaw buñ la ubbilee ubbi gu bér gu fés lañ ca namm jéggal la say bàkkaar yàlla mu ne defal na yonent muhammad fatxu waaye defal ko maxfirat di yaxfira laka laa ma taqaddama min dambika ma taaxar yàlla jéggal la li jiitu ci say bàkkaar ak la ci mujj yow daal set nga ci bàkkaar xoolal ma xaama bële man de maa ngi ñaan yàlla keroog bis penc yàlla jéggal ma keroog bis bu rëj rëj la ba bis bu rëj bu rëj ba yawma la yanfau maalum wala banuuna illa ma atalla bi qalbin salim يوم يفر المرء من أمي وأبي وصاحبتي وبني بمجا كونك ري داو باي داو سي ياي داو سي مبوك داو سي سوي جوم دنگا بيس بو رك رك لو ويونت يالله ابراهيم نيان يعني يالله جيغل يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم حبيب مونيكو موم يغانتو تي لولو يلا الله أدنى أدنا إنا فرحانك فتحا بنا ليغفر لك الله الخليل مقامه أن طمع في المغفرة بقوله والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين والحبيب مقامه في ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أنت على إبراهيم وخليل لنا maqaamaam bii nga xam ne mooy maqaamaam yàlla jéggal ko mu ne moom moo ko bëggoon ba xiir ci mbëggeel ga ba wax ne li ma bëgg yow yàlla mooy nga jéggal ma samay bàkkaar kër gis pénc walladi atma an yaxfira li xatiati yawma diin man daal li ma bëgg di ko di ko xemem moo yàlla jéggal ma kër gis pénc waaw yéen ci yàlla Ibrahim ñaan njéggalal yàlla والحبيب مقامه في ذلك حبيب مو يونتي فمنا حبيب رجل صلى الله عليه وسلم تجوم نانا حبيب موم مقام ام جي لولو نانكو خول موي لان موم داي نيكوت فنان ا آه، والذي اتما ان يغفر لي خطيئه يوم الدين موم دا فا توك ريك يالا غنيلكو تي كاو يونتي الله ابراهيم تي مقام بوبو نكو انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ñun yàlla day ñoo la ubbil ñun yàlla ginnaaw buñ la ubbilee ubbi gu bér gu fés lañ ca namm jéggal la say bàkkaar yàlla mu ne defal nañu daal Muhammad fatxu waaye defal ko maxfiratu di yaxfira laka laa ma taqaddama min zambika ma yàlla jéggal la li jiitu ci say bàkkaar ak la ci mujj yow daal set nga ci bàkkaar xolal ma xaama bële man de maa ngi ñaan yàlla keroog bis penc yàlla jéggal ma keroog bis bu rëj rëj la ba bis bu rëj bu rëj ba yawma la yanfau maalun wala banuuna illa ma atalla bi qalbin salim yawma yafiru maru min ummi wa abi wa saxibati wa bani ba mu jeex ku nekk di daw bay daw sa yaay daw say mbokk daw sa sa wayjur dégg nga bis bu rëg rëg lu ba ci yàlla ibrahim ñaan yàlla jéggal yonent yàlla bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi xabib mu ne ko moom yeggantewut ci loolu yàlla ko fii ci àdduna ne ko innaa fatahnaka fathan mubiinan li yaghfira laka llaah indiwaat na beneen maqaamu boo xam ne mooy maqaamu yonent yàlla Ibrahim wal xaliilu maqaamuhu at-talab qaal wala tuxzini yawma yub'athuun wa u'tiya al-habiibu min gayri talabin yawman laa yuxzi llaahu an-nabiy yawma laa yuxzi llaahu nabiyya walladiina aamanu maa xoolal maqaama bi yonent yàlla ibrahima alayhi salaam alxalil nee na moom maqaamaam sàkku la dafa ñaan waaw maqaamaam sàkku boo xam ne mooy maqaama qaala mu ne ibrahima moo wax wala tuxsi nii bul ma gàccaal yow yàlla bul ma gàccaal yow ma yubaasuuna bay gaañe da dekki keroog bisub dekkiwu ma gàccaal de moom ñaan na na loolu ci yàlla waaye nañ xool xam kii nga xam ne mooy Habib Muhammad sallallahu alayhi wa moom nan la mbire mi demee moom wa utiya al habibu min gayri talab mu ne yónni moom dañ ko jox saxtu sàkkuwul dafa toog yàlla jox ko ne ko yow ma bis boobee laa yox nabiya yàlla du toroxal yu ab yónintum dégg nga nu yonent yàlla toroxal yonentum bii walladina amanu maahu ak ñi nga xam ne gëm nañ ànd ak bisu bi bu rëg-rëg lu boobu bi walla bis bu metti boobu yàlla du toroxal yonentum bi du toroxal ñi ànd moom moom jox nañ ko ci lu dul sàkk mbokk mi beneen maqaamaa ngi noonu gis nga yéen ci Ibrahima maqaamam ca loola mooy sàkku yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqaamam ci loolu moom du sàkku dañ ko jox ban maqaamaat yi yonent yàlla Ibrahim dafa ñaan yàlla may ko mujj gu rafet te buñ ne mujj gu rafet mooy tur wu rafet ci mujj yàlla may ko ñëy ñëw gënnaam xam ci moom lu rafet di wax ci moom lu rafet turam rafet ci ñëy ñëw muy mu siiw ci lu rafet rek yàlla defal na ko ko mooy yonent yàlla Ibrahim alxalil alayhi salaam moom dafa ñaan yàlla ne ko wajaal lii lisaana sidqi fil aaxirin yàlla na ma defal wax ju dëggu ci ñuy ñëw mooy wax joo xam ne wax ju dëggu lay dox ne wax ju dëgg nag mooy lépp lu nettali ci moom mu nekk lu dëgg waaye lu rafet deram du yàqu ci dara voilà loolu yoon ci yàlla ibrahim ñaan xoolal xabib muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci maqaamaab ñaan yàlla may la dégg lisaanu sidq moom lan mooy maqaamaam ci loolu mu ne wal xabibu yàlla daf ko ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rafaanaa laka dikrak nga kële dafa ñaanoon lisaanu sidq lisaanu sidqi ma ne soo xamul lu firi wax naa laka dikrak moo lay moo la koy firil ki yàlla daf ne ko dinaa yëg sa tur ba yow doo ñaan siiw comme ni ko yonent Yàlla Ibrahim ñaane yow man maa lay siiwalal sama bopp war a faanaa lakk di kirak ca ca suratu charx xoolal ci rek la ko fa may ni mu bëree waaye gis nga bokk na ca wa rafaanaa laka dikrak kon gis nga maqaama boobu mooy maqaama bu am turu rafet ci ñuy ñëw siiw yonent yàlla ibrahima képp ku ne ci diina yonent bi salaa sallam ànd ak yenn yonent yi am nañu leen xam am nañu leen xamut am nañu xam ne xam nañ seen tur am ñu xam ne xamuñ sax far nañ tudd waaye xool yonent yàlla ibrahima ci xeetu yonent bi salaa sallam ni mu amee tur niñ ko bëggee niñ ko fonkee ni nga xam ne noonu la ñu toppee sunnaam waaye lii moom habib sallallahu alayhi wa sallam moom ñaanantewul dañ ne ko beneen maqaama ci yonent yàlla ibrahima man yonent yàlla ibrahima bëri na maqaama yu kawe de waaye xoolal habib ci yàlla ibrahim ñaan yàlla ne wajnub nii wa baniya an na'buda al asnaam yow yàlla yal na nga ma moytul man ak samay sama samay doom ñu jaamu xërëm yal na nga ma musal ma ak sama njaboot yow yàlla ci ñuy jaamu xërëm kooku dafa ñaan yàlla yàlla may ko nangul ko ñaanam xam nga kooku yàlla bëgg na ko lool ba tuddee ko xalil waaye kaay nag ci xabib mu ne wal xabibu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذن من نيو جي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت يعلمني النبي صلى الله عليه وسلم yow de li yàlla bëgg mooy demee lépp luy gàkk-gàkk lépp luy sobe lépp luy mbonte lépp luy ñaaw-ñaaw yàlla demee ko ñu ahlul bayt yàlla di ko seet moo tax ñu leen tuddee dégg nga at-taahiruun ñu nga xam ne dañoo laab yàlla leen laabal setal leen yàlla moo leen fonk màggal leen ba lépp luy dégg nga bàkkaar yàlla dindi ko ci ñoom dégg nga lépp luy jaamu xërëm yàlla dindi ko ci ñoom lépp luy bàkkaar ab tuuma weddi yàlla yàlla dindi ko ci ñoom lépp luy bàkkaar ab yàlla yàlla dindi ko ci ñoom mooy ahlul baytil kiram ñoom yàlla directement la yàlla may <clears throat> te bu ñu ahlul lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla gaaw xaat la ne yow ya Muhammad maa la setal maa la musal ci bon bon yi gars yi ne ni yow ak sa ñooñ yow moom maa ñëw rek setal la ci yonent yàlla Ibrahim nag moom daf ko ñaan yàlla yàlla sakku koo may xolal beneen ngeneel boobu nga xam ne nekkaan na ci diggante yonent bi tey moom dafa ne xasbiya allah walxalilu qaal xasbiya allah dafa ne yaa man day yàlla doy na ma lépp lu may def daal yàlla doy na ma ca dégg loolu moom moo ko moo jël responsabilité am waaye yonent bi salaa sallam yi xabib moom yàlla moo ko ko nangul waxal ko boppam ne ko yaa ayuha nabiyu xasbukallah yow yonent bi yow de yàlla rek moo la doy këree noonu yàlla doy na ma moo méngoo sama mbir yëpp kii yàlla waxal boppam ne ko yàlla doy ne moom méngoo sama mbir yëpp ba tey qaal inni zaahibun ila rabbi sayahdin inni zaahibun ila rabbi sayahdi man de maa ngi dem ci sama borom eh, mu gindi ma sama borom dina ma may njub sama borom dina ma may gindeeku ba ko mbokk yi sonalee mu ne leen ah ne nii du ma ci ne man daal maa ngi dem ci sama borom doy ma doy na ma lu may jublu doy na ma lu may topp. wal xabibu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent Yàlla Muhammad moom. لان الموي مقام تلول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الاسراء والمعراج من نوم ينت ابراهيم لو وخون ماغي ديم سي سما بار مو جندم كون بغ ديم سي بروم امنا جوج جوبلو بروم امنا كو نه خامن نكو جوج يون ديم سي بروب سونو تا يون و با nga yegg fa nga jëm rootina yoonu yàlla yunt yàlla muhammad mi habib sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla moom moo ko fa rañaanee defal ku ngëneel ñëw jël si ko boppam yóbbul ko boppam dégg nga boole maam boole ko ñam ko booleel boppam yóbbu ko fa moom may ko lam ko may loolu beneen ngëneel la boo xam ne di sallallahu alayhi wasallam xam nga président xam la bëgg la woolu la boole la ay ay ay ay ay nit maanaam yónni ay nit ñu ñoo jël si la ndég cofeel gu mu am ci yow xam nga ne ña lay jël si buñ ñëwee danañ la may jàmm fañ lay dugal dina am jàmm soo yeggee yëf gën a am jàmm kooku xam nga ne du yem ak ku xam ne moom moo soxla président def ay effort pour yegg ci président ku ne xam na ne mën naa sonn ci yoonu yoonu mën naa yéex ànd ak président xam na ko ànd ak président bëgg na ko waaye ndegam moom moo jóg ngir demal boppam du yema ko xam ne président si boobu moo la moo la wowal boppam may nguur ak àdduna gi rek mën nañoo jàngal ci nguur ak yàlla gi lu bari kon kii dafa sàkk woon jublu boromam jox dox jëm ci boromam ak bépp moyen boo xam ne dina ko ko may kii nag moom boromam a ko wal boppam dégg jël ay moyen boppam yóbbu ko fa moom may ko la ko soob kon ku ne xam indi tey mu nekk maqaamu yonte yàlla ibrahim yi nga xam ne yàlla may na ko ko ak maqaama yi nga xam ne may na ko moolaana rasulullah sallallahu mu teg ci ne ilaa gayri zalik ak yeneen yu dul yoo xam ne am na ci diggante yonte yàlla ibrahim ak yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye liim indi nii doy na ci firnde waaw doy na ci ci diggante yonent yàlla ibrahim ak yonent yàlla muhammad ngëneel nga xam ne moo ci dox mbokk mi beneen darsu dina dugg ak yow ci yoon ci yàlla Muusa mi nga xam ne mooy alkalim maqaama yi ko yàlla may ak yi may yonent bi sallallahu alayhi wa ni ci ëpplante amee su ko defee ñu gën a am firnde ci ne bi sallallahu alayhi wa sallam afdalul anbiya wal mursalin li mooy suñu darsu tey wa salli allahumma wa sallim ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi

ربو ما بو مرحبا تقيدي بادو عليتو قدر الذي مقدار كمالي قدرهم أن يمزق البدر فيه من أخاه من أمره متهالي كل قاف سلام بما قصر لا لا تؤذه بقاعدة أهواء من وقع الذل والأموال كل حاق ظلم بخط ليس ثم يدمغ بالكتاب أعلى من وسط اللوطن والأموال عليكم بكل حاق ظلم